What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Sama guy. <laughs> Before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. Here <laughs> come my pub J, Ibrahim Ndao. Mustafa Mane, Dagoud from Belgium, Abakar Diallo from Russia, his early Ismail Diallo, di ko may Amadou Dame Diagne sama chéri ko ma maana my salon di ko may Omar Fall ñaw si kim Euh, Modou Fall nante kaw la di ko may euh, gars yi bëggee Malathion TV yëpp moo li gars yi short vidéo la pour apporter une réponse à Matala Kagoulard tu euh, def na live démb ba seetlu ma ko sax parce que ma gis mu titre rek naan lay xaw ma lan da su kii tuddee ñu les résidus lu ne la tuddee quoi tu vois mais fekk daf may apporter réponse may fu mu naan ay gars yi jànguñu poja ji poja caa tu vois c'est des ratés tu vois li ngay def muy dawal camion parce que man même booy raxas Ah, li gars yi wax boy lap tubaab eh, eh, sax di ko eh, man je respecte ton métier tu vois parce que il faut un tout pour faire un monde li lii bon moy ñaan quoi li bon sa àdduna moy ñaan talal loxo di ñaan parce que ñaan dafa metti buñ la gàntoore da ngay rus tu vois ci ko am ngor nak ci ko am ngor ak fen comme ni ngay def ni mataar di fen tu vois di fen di gis ku ñepp baaxal ngay nang koy bonal tu vois parce que loolu c'est malhonnête quoi c'est tellement malhonnête c'est tellement malhonnête bëgg sa way falu bu mu tax nga yaax way jambour quoi defal li sa ci non sal sal mën mais nan def di Sonko def Sonko xëyu rek na jëmmet nii de saa waay dafa sacrifié liggéeyam dafa sacrifié liggéeyam Sonko sëriñ yi ci kawam féticheurs yi ci kawam Sonko gars yi def corruption ñu ngi ci kawam Sonko waa France ñu ngi ci kawam Sonko tout un système ñu ci kawam pour ci kawam tu vois donc si leen laa gars yi bëgg ko ah ñi ñi ñi comment dirais je gars yi di ko support parce Sénégal vraiment dëkk bu pauvre la d' accord naa Sénégal dëkk bu bëri hypocrisie la mais Sénégal am na dëkk dëkk la boo xam ne tey jii wallaahi la azim dama dama dama bëgg Sénégalais j'aime trop les X gis gars yi show love bëgg Sonko naa laan sa waa moy bu baax bi ma lolu moo jox courage Lolu moo jox courage damay dox ci mbedd bi gis gaay na ma kat boy tu as raison des hommes de tenue barke rasoulallah dans l'anonymat des hommes de tenue des gens qui sont du ma ne sont dans le système ils ne sont pas dans le système mais des gens sont tay sen corps permettre leen tay ji pour ñu wax ci yenn affaire yi parce que ay hommes de tenue lañ dañ lay gis ci pet na la booy homme de tenue la mais tu as raison Sonko moy bu baax bi Fo dox ci mbedd mi Gaay yi yëpp ne naan bu baax bi mais xam nañ ne pour mu falu du yomb parce que amna ay euh, manam waa France bëgguñu mu falu euh, les corrompus bëgguñu falu classe Matar la Kagoulard tam tey ji intérêt la ñu demee bëgguñu mu falu tu vois ñëw bëgg a imposer benn Thierno Alassane Sall tax ñuy jéem a calomnier que wax nañ leen ne leen tey ji yéen utu bi ngeen yor muy internet ku leen bëgg mu baax mu baax ku leen bëgg mu wàcc mu wàcc tu vois affaire dof la quoi tu vois Sonko bëri ko ci mbattal la sànni rek day dem sànni rek day dem li sama boy bi di wax sama sama sama réel brode bi nekk Belgique mu ne ma Sonko dof ko ku ku ku ko te loolu ça c'est la vérité ça c'est la vérité Sonko barkis ay bañkat dëgg dëgg dëgg ku bëgg a Sonko doo jël alalu ku bëgg Sonko tubaab du la yab tubaab du la yab barki ku ku bëgg a Sonko tubaab du doo soxla alalu jàmbur da ngay liggéey ku bëgg a Sonko soo gisee injustice pare nga pour joxe sa bakkan comme nit jihadiste yi def ñoo ñëw militant Sonko yi ay bañkat dëgg ay bañkat dëgg des personnes très fières différent de toi bi nga xam ne tey ji maanaam da ngay calomnier ah, yaa ngi naan hating for no fucking reason da ngay bañ nit te defu la dara parce que Alassane Sall tu as le droit nga diini ah lakum candidaanikum wala yow candidat ni yow demal sa candidat nga teg ko d' accord on respecte mais ñu suñu mbër dañu ko wóolu te moom la nekk mais bu ko jéem a boo nekkee suñu chemin rek saa yi dañuy dal sa kaw boo nekkee suñu chemin dañuy dal sa kaw parce que Sonko dara duñu ko tax bàyyi moom la gëm tey jii man su ma amee dara ba gars yi di ma xam ne wax Sonko ma koy def moo ñu boole war ngay toog gàllankoor non yow gis nga Sonko c'est pas besoin de voir Sonko Sonko tey jii une question euh, comme qui ça euh, comme comme comme comme comme comme comme comme ma ne comme yàlla parce que day mel ni bokkaale parce que gars yi dañu transposé mais Yalla, gisoo ko mais tu sens sa présence Sonko je le vois pas physiquement mais je sens sa présence de par ses actes. de par le travail qu'il est en train de battre d'abattre sur la sur la sur la euh, population sénégalaise ñuy conscient ni ñi di nekk ay bañkat Sonko il est présent je le vois. te suis pas besoin man la personne de Sonko ne m'intéresse pas li ma intéressé lan mooy lan courant bu mu indi courant politique bu indi nii gëm sa bopp émancipation isinfi ah to live and die in Senegal. ah to live and take in Senegal. maanaam loolu c'est possible gëm der bu ñuul delloowaat ñu suñu ngor delloowaat ñu suñu su suñu courant delloowaat ñu suñu ndox jox booy espoir organiser concours yi corruption bi jóge fi Sénégal bu nekk yëg sa bopp ci Sénégal mënuñu tere ñu nekk ay milliardaires mais ku nekk tey di nga am le minimum muy faju jàng ah, embouteillage ben ben ben ben ben ben ben ben un ancien rêve tu vois lolo lañ top songo yow nak bo la nga dal sa camion nan gaay ay résidus la ñu fa saa matar yow na nga da nga jang way man damay laaj ba tax ndax amna jang bo xamanteni manam tay ji euh dal ko ñoo dawal camion est-ce que laaj na jang jaru bo ñewé te tëngëj fii garage yu barni barke rasoulay bo yam 15 ans 13 ans ñu dawal camion bo yam 13 ans 14 ans donc yow sa connaissance bobu nonu nga jang jang pour waccar ko foofu nonu mun nga bañ jang noonu nga koy jàng de parce que bu dee ay dawal kam yow kese mooy mooy ñun ay résidus lañ d' accord nous sommes des résidus jànguñu xamuñu dara d' accord tekkuñu dara nous sommes des ratés d' mais ay ratés yoo xam ne tey peut être nañ comme ni ngay jàppee raté ah mais ñun on a su garder notre dignité on a su garder l' pour le Sénégal qu'on du temps et qui nous a tout donné man bu dee man kese la tubaab yi ak américains yi a man tëj seen dara France na tëj Italie na tëj États-Unis na tëj seen lépp na tëj adoon nii dem man soxlaa ma seen dara li ma gëm mooy Sénégal te mën nañoo tekk fii naar yu tayal yii bu ñu ko defee mën nañu koo def fii tu as des une jeune xam ne ils sont braves ay carreleurs ay menuisiers nga yeewu Valda euh, boo demee ay Valda ay Madaar booy yi ne nga fay gis ay paa yoo xam sax liggéey nañ bëri te waroon toog ñàkk doom bu leen aaw tax ñu dem di di di di garan si yooyu noonu laay toog xeex ko pas pour man mais pour ñuy ñëw pour man pour ñuy ñëw société da ngay dem société ñu la société début bi ses débuts étaient difficiles doyen yi wax la ko naanaa amuñu woon oto bu ñu doon yóbbu léegi oto transport moo loolu c'est utopique ji tàndar mu sax nga lekk léegi yooyu jéem na mais naa ji loo xam tey jii peut-être même bu bu bu ñu koy lekk du ma fekk mais su ma nekkee sama biir tomb yàlla woon benn flashback ne ma Sénégal nga bàyyi woon kat léegi am na décentralisation waa Fatick am nañ eau potable waa i bëñ xuuratul yooyu mooy sama rêve man ndox mu neex pour ñëpp fontaine pour jëpp ñëpp di yeew di lekk mburu mu tàng di lekk ay croissant lu tax waa Dakar kese war koo lekk bu ñëwee fii ngeen naan gars yi toog leen seen dëkk bu leen toog ñëw leen Dakar ñëw leen Dakar parce que ëppaleenu fi ku brandir sa carte d'identité looy gis carte d'identité carte d'identité nationale sénégalaise lu tax léegi sénégalais yi war a nekk ñi la war ñu nekk Matar bokkuñu combat Matar man sama combat pour Sénégal la man du ma nekk à distance dina fi di wax nii di ay kan yi man soxla ma Thierno Alassane Sall soxla fu ne ni Sonko lu mu defar ne Sonko sa mënta si dara bu Sonko xëyoon tey ji changé ko si moom benn jomaay jël ko yóbbu wala benn Ibrahima Ndaw wala man mi ma ñëw prôné waat ko parce que teg nañ ci yoon ba pare mënut ci dara teg nañ ci yoon ba pare affaire yi koy indi dem te day continuer di dox islam ña nga xeexoon badar kii newatuñu fi mais gars koy jixaat ba léegi te flambeau bi am na ñeneen ñu koy yeggal les hommes passent mais les xam nga les hommes passent mais les institutions demeurent ñu loolu la ñuy xeex pas ne fii tey ji Thierno Sall Sall bëgg bëgg teg fenn rek wala nga bëgg ko jox benn oraawu kii loolu Sonko lu mu def nii dafa laaj sacrifice bu bëri dafa laaj sacrifice bu bëri Sonko bàyyiwul ba génn soog wax ba mu nekkee ci biir la wax bu mu may opportunité pour jaay ay suuf ah, pour mën a tey ji maanaam nekk milliardaire jaay ay suuf mënoon na ko def saa yu bu la Sonko xaalis sa quinze personnes bii daayi wallahi taalaay mënoon na toog Sonko tey mu génne livre solution def ay kii bu fekkoon tey ji loolu rek a neex mu def kon Idriss Seck ñu ay mbokkam moom xam na la mission elle est autre part moom gë gë moom dafa man dafa am yërmande ci Sénégalais c'est le seul leader politique de défi quiconque moom mo fi taxaw ne yërëm leen Sénégalais ñeneen ñep luñ lay wax ay PIB ay suma riri Sonko mooy ñëw kaasal leen ne leen yërëm leen Sénégalais comme yërëm ne doo jiite li sama boy wax na man Sonko xel yi ñoo euh, du xel yi ñoo gis mais xol yi dama nan Sonko xel ak xol yi lepp ko gis lepp ko gis so bëggul Sonko xam nga looy bëgg moy li mo waxoon sama wax ji du neex ku bañ Sonko sa fekkoon jamonoy ki yéefari ak yonent bi yéefari ngay andal parce ñoo yoron ciaka ji yor yalla yu bari yor lepp lu neex yonent bi concept kese lay ndoon Sonko moy lool c'est le leader c'est le seul leader politique bo xamne tay ji manam euh, li serigne am mom la am a part sëriñ yi booyee dañuy dem xelkom da fay trois mois bayal serigne bi ne ko am Sonko am lool ci politique yenn parti politique ku wàccu ci terrain bi motay bu nekk ci ko trois cent mille financement dig la emploi do am dara Sonko mooy ñew gaay yi loué base loué lépp xam ko laaj tol sa personne kese na ñëw ak sa idée nga ñew wax gaa yi ñooy cotiser di ko jox loolu Sonko rek am sëriñ yi ban leader moo ko fi am ban leader moo ko fi am yow ma tax ne ma sax la ñaan mënu mënul dara ba mu génnee wax ñoo ñu wax kii nekkoon ci biir ba soo ko wax kooku bu waxee wax ah Moustapha Cissé wax bu yaxam génnoon su boobu ñu commencé wax ñoom man casier casier li ma toog li ma toog dama ne la lu jaa si mënul fu ko paaka di mënee ah Macky Sall ak ay renseignements généraux tout ce qu'il a mënul dara ci Sonko yow nga nit ñuy menacer ñuy tiit il faut être idiot pour croire à ces kii mun kii dañ koo gëm waa ji dañ koo gëm tu vois bu defee ne daan ay kii man de xuma man chien la mbóot la lépp Sonko la parce que du ma gën a gore tànkam ngi dem damay topp si ginnaaw day ma la yoon ta beg saxaaba yi na sama bopp mais bu su ma demee ba Sénégal tey tey acte moo mën sax man tey vaar bi vidéo yi fi man kay xam nga dañ lay vaar ngay mel

ay jaam yu mel ne yow Matar la kagulaan nga bañ doomu Aliou Sall la Mansour la ñuy ah, dëkk bi nga kaas bay bëgg dee ñu mën ay PS la nga doon kaas gën a raw nga dem am problème mu mën am sax problème ñëw à distance sa mbokki naa la wari ma joni joni ma riyaa ma nga gis Sénégalais yi li ñuy dundee noonu nga xam ne tey ji peut-être duggoon na système bi Macky daax ko mu nekk mécontent mu génn di wax hmm? nañ teg teg CV yi nañ ko teg white sheet fu ma neex laay utee casier judiciaire lu ma neex laay def set wicc laa def jël ñu salte ñi di leen comparé kii vraiment su ma bëggee kii rek naqar bay sama ma ko soo ko mooy loolu quoi ah vraiment yow ma taal dama fàtte ma taal Matar, yow yaay le premier transhumant du Hip-Hop sen. le premier traître Matar BM ji nga ne nga nek BM Iba gis la na la bayil BM parce que yow yow mën nga bind dama gëni. Nga jëk transhumant ci rapport Sénégal Transhumant bu nga xamé ci politique ci ci ci rap yow Matar la kagulaal nga trahir ñàkk jub sax taxoon na ngay sol ay kagul neub sa kanam parce que t'es pas t'es pas honnête parce que da ngay laaxatu xam nga loo wax tey su mën nga ci génn gaay yi la vaar lay bañ ci ko la vaar ah nit kay bo lay gor am liggéey ba ñëw ragal lay ragal vaar lay ragal ci vaar ah baat bi dafa neex parce que dina tax ku nekk ngay xool li ngay wax xool say sët li ñu leen fi bàyyi kenn moomul kenn baat bi kay moom dafa yéex sax ñëw ah, ah, ah, ne fàkk kii nga tas lépp Iba ba parce que boo demee seen aaya yooyu ngeen a a jël pour doxaan nit ñi tarif yi affaire yi noonu c'est pas ah bu fekkoon ne alxuraan mooy alxuraan bu nekkee si nit nit nit ki maanaam am nu ko kiwee noonu kon loo gis ilimaan yi tëddee seen i doom wala ñu def loolu noonu ci ay ci ay da nga ni da mbubboo alxuraan yéen yéen a bëgg alxuraan mais alxuraan newul ci yéen bëggu maanaam dafa mel ni alxuraan boo amoon dangar yéen jaan ju amul bu dangar ji nekkee si yow da ragal yàlla di xool li ngay wax di xool li ngay def yi du leen ko sama kanam gu ñaaw génn Sonko ku ku ku ku sonna si nootaange di gis tubaab bi li ñuy def da bëgg Sonko ku bëgg maanaam tey jii say doom ëllëg am espoir seen dëgg da bëgg Sonko ku bëgg bàyyi booy bàyyi di dem di kin da ngay bëgg Sonko jàll ci décentralisation yi affaire yi bañ a nekk Dakar da ngay bëgg Sonko ku bëgg maanaam tey jii euh, yes weekend bi ñu doon wax naan tey jii c'est possible nit ku ñuul mën a développer boppam ñu bañ nekk état sous perfusion wala région française da bëgg Sonko maanaam en bref ku bëgg lu baax da bëgg Sonko parce mooy bu baax